allo ah. wa bon léegi président mu ne na na wax pour ma jotalil ko mu wax ak mbooloo mi waaw ah, allez mhm. mi ñuy wax asalaamaaleykum waa alliance pour la république asalaamaaleykum les élus asalaamaaleykum bépp responsable boo xam ne yaa ngi tey teew fii nee na mi ngi nuyu la direction du parti di nuyu les jeunes di nuyu les femmes di nuyu les maires di nuyu les président de conseils départementaux di nuyu les conseillers économiques sociaux et environnementaux di nuyu les hauts conseillers ak képp koo xamante ni nii conseiller municipal nga wala conseiller départemental wala nga nekk ci composante parti boo mën a doon nee nag mi ngi beral nuyoo militante yi ak militant yi nga xam ne lépp lu ñu am tey ñoom ñoo ko waral lépp loo xamante ni nii tey ndam la bu mu am Sénégal ba ñu koy ndamoo militante ak militant wu parti bi ñoo ko waral nee na mi ngi nuyu nag li nga xam ne moom mooy les élus mais nee na daf ciy beral nuyoo nag ñi nga xam ne ñooy député yi nga xam ne ñoo nekkoon ci groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di ci boole képp koo xam ne yaa ngi àndoon ak ñoom ci xeex bi ñu nekkoon nee na mi ngi am mbegteelu lu bo bu mag ci ndaje tey bii ndax am na loo xam ne wane na ko ci njaboot bi nga xam ne yéen yéen a ko ko dénkoon boobaak léegi nee na nee na tey mobilisation bi nga xam ne moo am tey wane na ne képp koo xam ne yaa ngi wër di wax ci turam naan président moo ma yónni walla président moo wax naa dem ci beneen njaboot wala président moo wax naa wax nangam ak nangam yónniwul kenn njabootam tey fii lañu ñu daje loolu nag li muy wane mooy njabootam tey la gën a takku te mi ngi leen ñaan ngeen gën a nekk benn nekk ci ginnaaw responsable yi teew fii tey nee na ñii wax naan dem na dootul ñëw ñii wax naan dootu fi jege tey la gën a taxaw ci kanamu parti bi tey la gën a taxaw ci combat parti bi nee na nee na tey la gën taxaw ci kanamu parti bi pour ñu gagné élection yii di ñëw nee na nee na nag nee na coalition bi nga xam ne dinañ ko taxawal ëllëg moom ci boppam nañu xam ne moom moo koy signé ci loxo boppam pour ñu mën a dem ci élection yi nee na coalition bu yaatu la nar a doon ndax am na ñu bari ñoo xam ne mi ngi waxtaan ak ñoom te waxtaan bi dafay continuer nee na dinañ am suñu programme de législature ak programme de gouvernement boo xam ne suñu gagné le 17 novembre moom la ñuy taxawal ci réew mi nee ku ne xam na ne bi muy jógee ci réew mi au mois d'avril lépp loo xamante ne ni bàyyi na ko fii ci wàllu koom-koom ci wàllu réalisation ak ci wàllu doxalin bu rafet livre blanc bi nga xam ne publier nañ ko barki Dembo Ndiaye wane na lépp loo xamante ni def nañ ko ci lu am solo nee li ci des nag mooy ñu gëm yàlla te xam ne lépp lu nekk Sénégal doomu aadama mën ko yor tey fukki at ak ñaar yii ci ginnaaw tegoon nañ ko ci sunu loxo ñu yor ko yor bu rafet donc mi ngi wax nañu gëm yàlla te xam ne yàlla jugu fi nee na kenn warul tax di am loo xam ne tey war nga ko mën taxaw di ko wax te tey jii war nañu mën taxaw siggi ci kanamu Sénégal yépp xam ne liggéey bi ñu fi def du fay ba allah yow mi diini nee na nag amul benn ragal boo xam ne war nañ ko am li nga xam ne moo nekk suñu kanam Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. nee na dañu xam ne ñun démocratie la ñuy doxal dëgg lañuy doxal te ku ne xam ne ne ay pexe tey mi ngi jóg pour ñu yàqal nasaxal lii alliance pour la république waaye loo xam ne la yàllaa ko fi tegoon yàllaa ci teg loxoom sénégalais yi ànd ak moom te loolu li ci kanam moom moo gën a am solo nee na dañu bëgg mu xamal leen ne amul kenn koo xam ne parce que pexe yi ñuy yëkkati ay pexe la yoo xam ne mi ngi jëm ci jéem a tirimal deru président Macky Sall jéem a yàq xelu nit ñi waaye mi ngi leen di wax ne loolu du tere kanam gi nga xam ne moom la leen féete day continuer taxaw tey ak ëllëg pour que li nga xamante ne nii sumb nañ ko nu mën ko àggale parce que tant que ñoom yàquñu deru président Macky Sall ba li nga xamante ne nii moo leen tere nelaw te muy liggéey boo xamante ni def nañ ko ci réew mi te mënuñu ko fay du ñu am li ñu bëgg waaye jàppale ne lu muy wax ci turu parti bi ak turu coalition bi la koy waxee pour que ñëpp jot ci. nee na maire yi lay waxal président conseil départementaux yi ak responsable yi nekk fii nee na képp ku ñëw ci yéen naan leen président moo ma yónni président moo ma waxal nangam te gisu leen ko ci responsable yi yàq ko tax a jóg ak wax lu dul dëgg waaye yónniwul kenn lu muy yónnee ci responsable yi la koy yónnee wala mu bind ko ci loxo militant yépp gis ko ci turu parti bi ak coalition bi nga xam ne dinañ ko taxawal te muy doon coalition bu yaatu lool nee na dafay wax ne dafa am ñoo xam ne moom góor la ànde woon ak doomu aadama yi li mu àndoon ak aadama yi mooy liggéey Sénégal mosul xool lu mu am wala lu njabootam am lépp loo xam ne daf ko daan def daf koy def pour Sénégal ñi nga xam ne nag dañoo am loo xam ne moom la ñu wut si woon ñu jàpp ne nguur gi jeex na tey mën nañoo dem ku ñu mën a waxal nañu wax ak moom waaye ku dem nañu toog xaar yàlla ak suñu liggéey loolu moom la bëggoon wax ñëpp nee na li am solo mooy population yi ñooy fal nañu dem ci population yi waxtaan ak ñoom responsable yi aussi mi ngi leen di ñaax ngeen dem à parce que militants yi aussi ñoom ñooy joxe li nga xamante ni moom lañu soxla ci réew mi. nee na fi nga xam ne moo lay jeexale mooy investiture yi yi nga xamante ni ci la jëm ci ay fan yu néew munta mel comme investiture yu njëkk yi. nee na tey fii ñu toll il faut que nit ñi fàtte seen bopp ñu teg Sénégal ci kanam booloo nekk benn xam ne dañuy ibbeeku ànd ak yeneen force yi nga xam ne liggéey Sénégal moo leen tax a jóg ku ci nekk mën a gis boppam ci li ñuy def te gis boppam ci li ñuy def nag mooy Sénégal gis ci boppam ñu mën a am investiture yoo xam ne dañuy teg intérêt Sénégal ci kanam mën a am programme boo xamante ni programme de législature la ak programme de gouvernance boo xam ne ñëpp dinañ ci xaj ëllëg ba Sénégal mën a gën a mën a jëm ci kanam nee ñi nga xam ne militant yi ñoo leen jiital te yàlla def ci ñoom xam-xam ak xarañte te ëppale ko kenn ñooñu tamit nañu ibbi seen xol ibbi seen xalaat ba xaj-xajal képp koo xam ne kilifa nga wala militante nga nga mën a xaj ci mbir mi comme ça ñépp ñi nga xam ne ñoo nekk ci njaboot gi mën a ci gis seen bopp nee na pour terminer nag Uh-huh. nee na li muy li muy terminé nag moom mooy dafa am ñu bari ñoo xam ne tey jii pour pour justifier seen taxawaay dañ naan président daa tayle Sénégal président dafa jàppale ñi fi nekk président dafa am ay deal yu muy def nee na réponse la leen di jox nag foofu lay terminé. nee na li nga xam ne mooy moom du woon candidat te ku ne xam na ne addunaam yépp mooy Sénégal am jàmm nee na loolu moo indi lii nga xam ne moom lañ doon woowee la loi d'amnistie pour mën a dem organiser ay ci jàmm pour que Sénégal mën a dal bàyyi réew mi ci jàmm du ko bàyyi xeex ak xuloo comme tey jii nga xamante nii moom lañu fi gis nee na su fekkoon ne uh-huh. uh-huh. uh-huh. nee na su fekkoon ne ñii fi ne tey dafa am benn complot boo xam ne am na ko ak ñoom moom en tant que ancien président bépp wareef boo xam ne war na ko jot wala ñu war koo defloog moom amul dara loo xam ne jot na ko ci ñuy dal ci njabootam di dal ci ay militant am di dal ci ay responsable am jàpp naa ne koo xam ne dafa def complot kenn du taxawee noonu ak moom donc amul dara loo xam ne dox na ci diggante ak ñoom nee li nga xam ne moom la warle woon ak réew mi warloo ko ak candidat bi nga xam ne moom dafa fekk njabootam fii ci parti bi mu tànn ko contre la volonté de tout monde ni mu doon financé campagne lu ko raw la financé campagne amul dërëmu kenn bu dem ci campagne électorale bi la mu warloon ak moom warloo ko ak dëkk bi war warloo ko ak parti bi def na fa def loo xamante ni nii jéggi na dayoo loolu il faut Sénégal yëpp xam ko militants yi xam ko képp koo xam ne nag yaa ngi wax leneen da ngay wut yoon rek pour dem waaye ku bëgg a dem ak ku bëgg a dee yam kenn mënul ci moom dara kenn mënu leen tee nee na ni muy terminé nag mooy xeex bi ñuy xeex xeexu ñëpp la nee na ni muy terminé mooy il faut ñu xam ne mbir mi ñëpp ñoo ci war a def seen loxo tey jii ni ñu tasee assemblée nationale bëggoon ko tasee o conseil ak conseil économique su fekkee ne majorité amuñu ko ci élection yi ci maire yi lañ dem ak président conseil départementaux yi donc loolu mi ngi wax ne képp koo xam ne yaa ngi nekk ci parti bi wala ci coalition bi ñu war a taxawal wara nga nekk sénégalais boo xam ne Sénégal moo la yëkkati nañu soobu ñun ñëpp ànd ci xeex bi pour yàlla mën ñu may ndam parce que yàlla moo yor sutura àdduna parce xeex la ñu mën waaye yàlla mooy fale te yàlla ku mu suturaal mooy ki nga xam ne mi ngi xeex guddeeg bëccëg suba ngoon te noonu ngeen di doxalee. tout à fait président nee na bëggul lim di juum mais direction parti bi ci yéen lay mujje parce que nee na tous les responsables ñi nekk ci direction parti bi mi ngi leen di remercier ndax taxawaay bi ngeen ko taxaw ci ginnaawam rafet na te loolu nee na mi ngi ciy boole jigéen ñi di ci boole ndaw ñi di ci boole arabisants yi di ci boole enseignants yi di ci boole étudiants yi di ci boole jeunes yi di ci boole cadres yi di ci boole mouvement national des handicapés di ci boole sages yi di ci boole aussi comme ni nga wax nee na foofu lay mujje te loolu moo gën a am solo mooy militantes yi ak militants yi ak képp koo xam ne sénégalais nga wasalaamaaleykum wa rahmatullah nee na mi ngi leen di sant yëpp di leen gërëm Voilà. C'est bon. Doomu Axmadu Pu def du soir du jagaraf lamima o ari ko dimo o yalti ko dimo o woni lamdam lamdo leydam mo jahatta kumba timmo liggotoɗo ma waddane haala golliɗo mo waddane haala naati ko dimo yalti ko dimo ala wonde yimɓe maɗa yimɓe ma hanki kala nanan dari yimɓe ma ɓe gondunoɗa kala nanan dari ɗo woni make amadou puuɗi lamdam yoy lamɗo leydam liduruji ma kala nanan jooɗi ɓe gondunoɗa hanki e heccangi kala nanan jooɗi ene gonde ma rewɓe nanan dari ye jogoɗo tawemake amadoyam sénégal hattimama sénégal yewnima sénégal yi darndema sénégal yi yolde maɗa maki yo makoyam yewgara yewgara yo ɓindi yolde maɗa yawgara min ji jonɗa maɗa yawgara yo e makoyam yawgara yawgara yo e mamadou madi emake amadou puuɗi yawgara yo min ji yolde maɗa sénégal yi yolde maɗa sénégal hattimama sénégal hattimama sénégal hattimama sénégal hattimama sénégal